gis-gisu Mimi Touré daal dinay dëppoo ak xalaatu ki nga xamante ni moo di abdul mbay Abdou mbay nag daal dinay xamle ni daal lii nga xamante ni kii di Aminata Touré wax na ko lépp daal dina ci ànd ba mu mat sëkk moom mii di Abdoul Mbaye nag ci ab bu mu def daal dinay xamle ni daal ñi nga xamante ni ni dañu bëgg Sénégal lu mu yàgg-yàgg rek daañu génn ci complot gi nga xamante ni ñi ngi koy def mu ñeel ñetteelu mandat moom nag di abdul mbay daal di xamle ni daal yàgg na ko leer ni que ni rek ci biir coalition bu benn Bokk Yaakaar am na ñoo xamante ni ay patriote lañ